ay cours la doon joxe ci école privée yi. ah moom laa la wax mais mais euh, non. nekkul sax ci ci fonction publique. moom laa la euh, ak yeneen ak yeneen. ji tey jii nii yow mi mën na la. te moom boo la moom laa la wax moo tax ma ne la xool bul sax sonal sa bopp. tous ces maires là ils sont enrichis avec le ñëpp foncier bi la ñuy dagg ko di ko jaay te amuñu ci droit am na ci ñoo xam nag wax dëgg yàlla jub nañ ci ñi ma xam ñenn ñu ma xam mais la plupart nga ciy gis. la plupart c'est-à-dire c'est ay maires yoo xam dañoo jubati foncier bi lu ñu ci def yëpp ay njuuj njaaj kese la moo tax ma ne gis nga il faut faire un audit du foncier. et que aussi il faut apporter des réformes. Mhm. ba maires yi dootuñu am benn capacité di jël cest dire suuf si di ko sax saxee comme comme comme ni mu leen neexee. Mhm. parce que commune rurale yi nga gis fii yëpp les maires se sont enrichis d'une façon boo xamante ne nii ñaaw na. et tout ça pour des intérêts personnels. c'est pour des intérêts personnels. quand un maire va jusqu'à construire un immeuble de quatorze étages c'est que loolu yaa am problème tey ah. je crois que état bi war nañu dem maire boobu ñu xool la muy tabax ñu gëstu ko saytu ko xanaa ma informé suma mbokk internautes di avant may jàll ndaxte maak Serigne Saliou mu ngi wax lu am solo euh, ñu topp mbir yi ba képp ku laale ci mbir yi daal ñu ñu xam lan la. Mm. maa ngi gis euh, affaire a jaxate ndax suñu ay ndaw ñu ngi ca fi nga toll fi fi mu toll nii ñu ngi ca tribunal bu Ndakaaru booru Rëbës di saytu mbir ya no muy doxee waaye mu ngi may ñu ngi may wax ne ma le dossier. Ah, donc euh, sera lundi en flagrant délit hmm. et ci boobee wàll nag ma ji sa benn naataango Mahamadou Ibra Kane ah, naan on ne peut pas arrêter Bah Diakhaté et euh, laisser euh, libre Ousmane Tounkara donc loolu moom xam naa ne après di nga ma ci commenter puisque dépassé naa ko mais damay bëgg di jox gars yi l'info di leen nuyu bu baax a baax ñoom itam ndax maa ñoom ñooy defandoo <laughs> émission bi. Hmm. Ah, jër ngeen jëf ah ku mel ni daan Sow. Ibu business donc Linguère Laay Bara Diop Salah ah, yéen ñëpp Zaza Salzman yéen ñëpp Baysal maa ngi leen di nuyu Moussa Ba Aline Sow Belnoble ah, yéen ñëpp cant ak ngërëm ñeel na leen ah. maa ngi gis seen commentaire yi yéen ci émission bi ngeen bokk moo tax commenté leen posé leen seen i question fin d' émission bi yéen ko moom à Serigne Saliou donc euh, amul jot waaye man maa koy kereel jot bi souvent moom suma grand la moom xam naa ne <laughs> lu bëri maa koy def loo mais mais mais jërë ngeen jëf yéen ñu ñuy suivre un peu partout moo xam ci réew mi baa bi biti réew on poursuit de plus belle l' émission cette fois ci Serigne Saliou Gueye euh, ñu waxtaanee démb euh, ndaxte.